mais wëlle li ma bëgg xam mooy sa diggante ak Lirou Diane lan la parce que dafa mel ni après adversaire bi ngeen doonoon ci làmb après làmb tamit da ngeen doon ay adversaire da ngeen waxante wala yow jukkoy Lirou Diane lan moo tax bu jekk bu jekk bu jekk bu jekk mais léegi vraiment vraiment soo dépassé Lirou Diane na parce que nit nag boo demee tey ba liggéey télé ak rajo vraiment il faut nag dootoo wax ak ñen ñi quoi ah. Ah. kon bu mu toll nii da liggéey ci télé ak rajo doo wax ak moom. waaw to site bi sa patron kooku woon na ma. pour dàq la yow. <laughs> pour jël ma. laay waxaale. Ah. mais dama ko non dama ko non nu mu tudd sax. grand baabu baabu xam nga aussi boo xam nga xam nga nit aussi. nit doo fekk rek parce que. na fi. Fatima mu mu dem. bu ma jëlee damay dem donc. na yem ci yow mii. Ah. yàgg nga fi yow mu am yaa ngi moom mu ñàkk yaa moom. ku mu fi jël. Ah. keneen naan kii. Ah. buy am feneen di dem. <laughs> man boo ma jëlee baabu. bu ma amee feneen damay dem donc. yi ci diir mi ak sëñ Basirou. <laughs> ñu wasaare affaire yi tey. yaay wasaare bu ko xam ci réew mi neexut ba neexut hmm. yaag sëñ basa ko tax ñu xam ko kon tey baabu hmm. waruma woo bëgg maa récupérer rafetul loolu parce que man taxuma uh-huh. nit ñi xam wasaare dëgg la tax ñu xam wasaare mu dem wasaare am tur. tur bu la bu bëgg maa. bu dee damay dàq ji li jël wuli. waaw c'est pas bon. parce que gis na wuli di def 15 minutes. de wuli cinq minutes de wuli Pepe Kale Réfane. Pepe Kale Réfane ah. fi amee Baabu yéema sa jiili xam nga jiili man dama ko bëgg. barke Serigne Bamba xam nga làmb ji yaru nga mun nga communiquer sëñ Bass mi rëb de presse ni mu neexee xoolal rëb de presse bi muy def bu defee sax da moo tax la amee ay dara kii moom am ñaa maanaam loolu barke Mohamed man revue de dama koy déglu baa bu fe ngeen di xam nga du ngeen démissionné mais da ngeen di grève liggéey mu yokkal leen xaalis. parce que li liggéey am na solo. na leen yokkal. da parce que man li ma fayoon. fa fayu la ko xam naa ne. ko fay nga liggéey. Ah, waaw <laughs> waaw waaw. <laughs> dégg naa loolu lay làmbal ma booy la man ginnaaw tey. léegi am naa ménageur ci ci ci wàllu site internet wulli la tudd dafa baax nag dafa rafet xol at saa su ne dañuy déggante mu may conseiller mu doon koo xamante ni ku ñàkk ki ñaan la te làmb rek moo tax ñu xamante man ak moom waaye maa ngi seede ni billaahi wallaahi ku baax a ngi nii ku rafet xol a ngi nii koo xamante ne bu sañoon ñëpp am jàmm bu sañoon ñëpp am xéewal euh, ñu ngay ñaan rek yàlla suñu borom lépp loo bëgg yàlla na la ci yàlla defal lu kawe sa njort sa doom jooju na wax ko mu bàyyi liiru jaan papaam la voilà xam nga liiru jaan. Ah. léegi sama doom mooy wax ak bu xam lii dafa neex. Oh, loolu dafa garaaw. dem ba sa doom di wax ak. moo tax mag moo xam ne da ngay bay wax oh. xale yéen a yàpp boo paree wax xale yàpp la de. sa doom ji mu ne lu ko ci waxatee. lu mu ne lii ñaar bu génnee rek. Ah. sama doom yëpp a ko yàpp. waaw ah. papa tapat gi de. loolu la gis baa ngi nii wax. <laughs> fekk kat la ba tapet bi. mooy dafa garaaw. mbay nan la tudd sax mbay Diop mbay Diop mu ne ñaata yoon la ma. <laughs> doo ci mu sedd. <laughs> Eh, ma ne ko mu wax mu ne loolu. njàmbaar la. tey doomu liw jaam. dëgg yab sama doom. Issa Mayel. déedéet doomi Liiru Jaan mënu ko yëpp. sa papa doom sa baay muy daw. waaw na xamaree ko. lii du gar meeg. Diop ngar sama doom léegi mooy wax ak Liiru Jaan. Hmm. man Liiru Jaan léegi. conseil am laa bu bu bu ma soxlaa woo ma. ma conseil ko lu baax. waaw mais wuli nañu waxante dëgg yow na sama xarit nga de mais wul Ose Pro la la sa mais yow gis yi nga yor di Samsung a la eh. Samsung A51 maa ko jën kenn taxawul ne maa la ko may te yor douze so jëndoo ko neexut bi dégg naa amul sa crédit day xam nga taxaw yor douze xam nga tey lu looy tiitaroo eh. na ko moom tey yor iPhone dañ ma ko may man su ma neexoon léegi ma ñaan mais billaay walaay même bu ma yor onze maa jëkk yor onze mm-hmm. yow gisoon sama onze léegi ma sama non sama jabar laa ko jox mm-hmm. maa ba ma yor onze boobu liw jaan mu ngi États-Unis yëpp mm-hmm. ma dem sama xaalis jënd sama iPhone onze huit cent mille bi bu jógee états yor onze ma may ko sama jabar ma ne ko léegi boo yore onze sama jabar ngay waxaat man dama ko dépassé bu yàgg <laughs> dama ko dépassé ah.